wahab lahu bil inshiqaaqi wal buruuj wa suurati taariqi ma faaqa al uruuj qabla al qiyaamati wa sun kitaaba yaa waahiban waabalil kitaaba bilaalatil alaaqil qaasiya salli salaam محمد والآل وصحبه في العال والمآل والتفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد wa ali wa sahbi ya samadi ya mam bin tahat li xayrin niqamu ila jinaanil xuldi ya muntaqimu salli wa sallim wal tubarik sarmada ala alladi sammaytuhu muhammada wa ali wa sahbi wa bidduha bi jadidam manajjahu muttadia bisharhi wat التين وسورة العلق صلى على فاتما قبل الغلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي السبق بدا سيدنا محمد ولا آله وسابي في الهار والمآر بسورة القدر واقل بينا صل على ندب علاه بين سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل يا مالك الملك باقي الزلزلة صل على من يقاد نزلا bila tasalsulin wala jawlin wala ulmin waxaat kafaytani taxawula sayidina muhammadin wala ali wa saabihi fi lhaali walmaali yaa rabbi dal jalaali wal ikraami salli bi taslimin wa bi ixtiraami ala nabi zil masaaya ahmada والآل وأصحاب وتصح يا أحمد بالعاديات وباقي القارعة صل على ذي السبق والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل وأصحاب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني bika bi alihi wa saabil kiram wa qudu lahu bi nazmi da xayra maram wa bi takasuri wa qilasuri salli ala man juttali bi nasuri bi bi xayri aafati wala kadar wa salliman alayhi mujri alqadar bi alihi wa saabi ya maaniu يا خير من أرضاه عبد صانع يا من له حسن فاعل من الضرر وقد كفيتني أداه ولا غرر صل بتسليم باقي الهمسة يا من كفانيها ولا الظلمزة على النبي محمد والآل وسابي في الهال والمآل يا محتيا نور بلا أفول صل بتسليم باقي الفيل على النبي ورسول أحمد ولا